noo tudd. Doudou Sané. ñaataat nga am. 22 ñaati kilo ngay posé. 115 kilos. ndax dugg bëgg nga dugg ci bëri door bi wala yaa ngi ci bëri dóor bi. maa ngi ci bëri dóor bi. jërëjëf looy wax sa sa sa sa adversaire bi nga xam ni moom la yàlla may ndam tey. non di ko féliciter rek di ko jaajëfal bu baax a baax yàlla na ko jig. Pakala ñu ngi lay nuyu. waaw dafay des aussi tamit sama adversaire. champion la ñoom ay ndaw lañu. ñun waruñu woon ñëw fii sax di bëre mais combat moo ñu jafe. te mbër booy entraîné sax jour da nga war di compétir. moo waral wàccaat bi suuf ñëw di compétir yàlla di ñuy wërsëgal tey mun naa neex suba mun naa nakari. waaw ñun moom fair play la ñuy def rek. loo yëg tey bi nga jëlee ñaari édition drapeau docteur Cheikh Kanté fii ci arène bi. waaw mbégte rek ndax jël naa ko fii nii ñëwaat tey ji jël ko. fii ma teg nii sax samay cimukaay fii laa ko tegoon aussi tamit ñëw jël ko moo tax ma ma ñëwee gars yi di ma naan da nga fiy jóge ma leen déedee rek ma ñaare ko quoi nga pare nga ci bëri dóor bi comme ni nga ko doon defee man pare naa pour lépp xam ne père ku combat jafe la nga wàcc fii di compétir combat rek nga bëgg ndax drapeau tey bii nga xam ni tey ministre yi Sénégal yëpp ñëw nañ tey nekkul exceptionnel ci yow loo yëg tey muy bés buñ delloo njukkal président maki Sall Abdou Karim Sall dend ak Assome Diatta ministre yëpp ak gouvernement Sénégal toog ak assemblée ak député yi ak Fatick kontaan rek moo gisee ministre yi ñoo ngi liggéey liggéey bu rafet Sénégal di leen ñaanal yalla affaire bi jëm ci kanam ndax Macky Sall mu naa jambar la te docteur Cheikh Kanté mo tamit ndaanaan la Fatick xam lañ ko ku yàgg a teral doomu aadama yi di jàppale ndaw yi di jàppale jeunesse bi kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wër ba lu luñ bëgg si politique ñoo xam yàlla yombal leen ko daal. Je pense que ce qui est important c'est la euh, c'est euh, la lutte sénégalaise qui est victorieuse euh, ce soir. Euh, je pense que c'est la jeunesse sénégalaise euh, qui est victorieuse euh, ce soir euh, à travers ce combat épique que nous venons de vivre tout à l'heure. Et ça rassure par rapport à la jeunesse montante qui en veut et qui veut perpétuer notre culture nationale, mais également qui veut perpétrer la lutte qui est encore une fois de plus l'espoir favori des Sénégalais. La fête est belle, et j'en profite pour féliciter encore une fois euh, M. Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, mais aussi féliciter les lutteurs, aussi bien celui qui a remporté que celui qui vient d'enregistrer une défaite, l'encourager à persévérer et souhaiter que ce soit une excellente euh, ouverture pour les lutteurs. Une soirée exceptionnelle. Euh, je dirais Fatigue en symbiose, le Sénégal en symbiose, avec une qualité de la participation. Au niveau des parrains, mon ami Abdou Karim est venu avec une délégation de presque 200 personnes. Je peux en dire autant pour le ministre euh, Assom Diata, mes autres collègues qui sont là. Qualité aussi euh, du combat, le meilleur à gagner. Donc je félicite M. monsieur, monsieur Pakala, encourage celui qui a perdu et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Amém.